voilà man mooy comme président maître Ablaye Wade dafa waxoon ne dafa bëgg yéen ngeen euh, téye nguur gi 50 ans est-ce que am nga yaakaar que ne après 2024 yéen libéralistes yi da ngeen di continuer ak nguur gi. waaw soo seetloo mbir yi Sénégal tey les grandes yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu mën leen tudd soo xalaatee tudd leen sont des libéraux. peut-être que les libéraux les libéraux sont dispersés ñi ngay tudd koo fi tudd yi ñu nekkoon ak Idrissa Seck ak waa Idrissa Seck yi euh, ñu ci bëri yëpp ay libéraux lañ. sauf ay Khalifa Sall yi ak ñi nga xam ne il vient d'arriver ñëpp ay libéraux lañu donc su fekkoon ne nous sommes unis. mais loolu c'est un faux débat ah. mon frère aussi le faux débat c'est pas parce que nous avons am nañu am nañu ñeneen yow du yow rek. ñun ñun ñun dañu war a wax pour que sénégalais yi apprécie ñun li ñuy wax. notre candidat nous avons un bon candidat ñun. nous avons un très bon candidat mooy Amadou Ba. il est bon et il a un support technique et politique euh, parti. APR ñoom am nañu Benno Ba Bokk Yaakaar plusieurs partis plusieurs mouvements plusieurs personnalités ñoom ñi ngi yéeg foofu donc le candidat luy même dafa mel ni ñun dañ ko tegal oto boo xam ne ki lay dawal. oto boobu Abdoulaye dafa waxoon ne. Mhm. Abdoulaye dafa waxoon ne fii Sénégal koo xam ne amoo fi un parti politique amoo fi ce support là pour nga gagner ay élections et même en Afrique ce sera extrêmement difficile.